bisimillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Mouhalim info numéro 3 ñi ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu waa groupe numéro 1 numéro 2 numéro 4 numéro 5 waa Mouhalim sport waa Mouhalim Facebook waa Mouhalim TV waa groupe Assamadiya waa groupe Yeewu jot na waa groupe No Stress Bil Ihsan ak mboolem warab yoo xamante nii itam. suñu kàddu dana fa àgg seen mbokk la Xaadim Thiam ngir tënkal leen li furusande ci xibaar ci kàllaamay wolof tey ji altine ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre 2022 fukki waxtu ak benn toftal na fanweeri simili fii ci dakaar Dakar Sébikotane ak li ko wër ñu doore xibaar yi kon ak ay kadd yooyu jëwriñ ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum communication di maître Moussa Bokar Thiam yëkkati na ko muy ay kàddu yu doy waar yoo xam ne daal mi ngi ko yëkkati ñeel mbiri Pape Alé Niang jëmee ko nag ci jeune reporter yi daañu ci dikk léegi incha allah ci taqar ñi ginnaaw ba nga xamante ni fas yéene leen présenté benn ci suñu partenaire yi ñu jàppale ci liggéey bi muy waa Touba aviation tourisme di ab agence de voyage nekk fële ci Touba di def ay services yu am solo bokk na ci yooyu service njaayum billet d' avion assurance location de voiture transfert d' argent sans cambio mooy bu amee xaalis daal bëgg ko soppi dañ koy def wàllum réservation d'hôtel képp koo xam ne am nga yitte ci ñoom wala ci 33 975 20 55 wala 77 643 27 70 seen arobas gmail point com ni leen ko junjee léegi kii di maître Moussa Bokar Sam Moussa Bokar Thiam di jëm dénk lépp lu jëm ci wàllum communication ci jamono joo xam ne ñu ko doon voté budget fële ci assemblée nationale ba yëkkati ay kaddu jëme ko ci jeune reporter neen la li seen yitte ak seen xeex feneen la war a jëm lu dul ci mbiri Pape Alé Niang ci jamono boo xam ne sax ñu yëngu ci presse bi ñëpp ñoom ñu ngi daal def ay pexe ak ay plan ngir nag ñi bàyyi kii di pap Alé Niang ñu dénk lépp jëm ci wàllum communication moom li muy daal waa jeune reporter ne leen yéen ngeen jël seen yitte ak seen xeex jëmee ko feneen lu ci mbiru Pape Alé yi ndax képp ku mën doon xam na ne Pape Alé Niang dafa juum moom moo tooñ ba tooñaatoo dana daal Pape Alé Niang jëru sax ngay comprendre droit wala nga xam dara ci justice pour mën ko atte Pape Alé Niang dafa tooñ te itam ab jamono bu yàgg yàgg nga nii ay ati ati ata nga nii boo xam ne Pape Alé ci anarchie lay dox bu ñu jaawalee liberté ak anarchie Pape Alé lépp loo xamante ni daal daf ko yëkkati ci ay kaddu wala di ko jëf ak di ko wax luy nasaxal sécurité réew mi la waaye itam ay attaques yoo xamante ni c'est personnel ay attaques yoo xamante ni itam ay ko ci gouvernement bi ak ay ministres rek ñoom ñoo ñu ko ci régime bi ba ku xam na ne anarchie lay dox te ba tey Pape Maître Bokar mooy wax ne daal Pape du journaliste ndax amul sax carte nationale de presse moom daal ci wàllum politique la yëngu muy ay kàddu yooyu kii di maître Moussa Bokar cam moo ko yëkkati jëmee ko ci mbiri Pape Alé Niang doon ci wax nag les jeunes reporters Mouhalim Info. Mouhalim Info kër gu roppalaan gii di Air Sénégal mel ni daal fan nii nag mi ngi dund ay jafe-jafe yu doy waar buñ sukkandikoo ci yéen kay bi di Les Échos ndax kat guddik gaaw jàpp di dibir gii ñu weesu rek benn vol bu waroon na bàyyi ko fii ay BD dem ba New York jóge fa jàll Baltimore. mujjul nag dem dañ ko mujj daal niilal ndax moom mii kër rappalaan gii di ay Air Sénégal waroon na loué ay avion ñaari avion benn bawoo fii ci ay BD dem fële ca France ca aéro ca Paris ci aéroport Charles de benn bi jóge fii dem ba New York jóge fa jàll Baltimore waaye nag vol wala bokk avion bi waroon a dem euh, fële ca New York dañ ko nag mujj niilal mujj ñu ci jot waral nag daal lu toll ci téeméeri nit ak juróom benn fukk ak lu toftal as lëf itam ñoom itam nekkoon itam ci ay jafe-jafe yu métti métti gannaaw ba ñu annulé seen vol boobee ndax itam ci ñoom ñooñi kat euh, Air Sénégal nag leen nu yóbbu hôtel ñu fanaan fa waaye ñoo mujj am place ca hôtel yooyu nekk daal ci ay jafe-jafe ñenn ñi daal ñoom mujj sax sàkk le pexe seen bopp fu fanaan nekk nag mu nekk daal mbir doy waar yoo xam ne itam mi ngi répété wu ndax itam ca lendemain bi ci ëllëg sa muy dem rek itam am na ay passager daal ay clients yoo xam ne ña nga bàyyi ko fële ci Ziguinchor ca Cap Skirring waroon nañu fii nag euh, embarqué ngir dem Paris jaare ko ci Air Sénégal waaye daal ñoom itam dañ leen wax daal ne seen seen roppalaan bi dañ ko daal mujj aj ba jëmmi jamono ñoom daal mujj ñu itam embarqué démb Mouhalim Info. Mouhalim Info mbir mu doy waar xewe ca Pikine ab jàppante boo xam ne kat mi ngi doxoon ci way takk der yi ak daal ñenn ñi wala boog ay jeunes yu nekk ci benn quartier ginnaaw ba nga xamante ni sax mbir mi ma nga door depuis ajjuma bi policiers yi daal amee benn alerte daal ku leen woo kat xamal leen ne daal seen koñ bi eh, la xew doy na waar ci mbirum yàmbaak njaay mbaak njiit maag tox gaak lu ñu mel daal waral nag way takk der daal daal di actionné wu nag fexe daal dafay enquête ba xam bërëb ba xam itam ñu jiite yëf ya eh, ba localisé daal ki ni moom moo nekk ca bopp yëf eh, boobee njënd ak njaay ak tuxum yàmbaat mi muy sëñ Guèye mi ginnaaw bi itam la ñu fexe daal ba teg ko loxo yóbbu ko itam këram ngir féete kër ga bu baax a baax fekk fa itam ci biir kër ga lu toll ci fukki kornetu yamba ak juróom-ñaar ginnaaw bi noppee ci loolu itam doon ko yóbbu ci commissariat la nag ñenn ci ay ndaw daal taxaw te mu ne du ki dal doon sànnante i xeer jàppante ñoom daal ba yëf yi daal mu juddee waar ba way takk jël sax génn fa ay ngànnaay ginnaaw bi itam daal la ñu nag ba sax teg ñoxo ñeneen rawatina kii nga xam ne moo topp ci sëñ Guèye mii muy ab naam ñu koy wax sëñ Xaadim xaadim mi daal moom itam euh, moom itam tegaale nañ ko loxo waaye daal nag mujj nañ daal yóbbu leen ñoom ñoo ñee nga xam ne ñoom la ñu njort ne ñoom daal ñooy jiite mbirum njaay njaay yàmbaag maag njënd maag tux maag foofee daal da nga nag mujj nañ leen yóbbu en garde à vue tey jii sax war nañ leen déféré jébbal leen procureur bu tribunal grande instance bu Pikine Guédiawaye ak téeméer ak fukk ak benn yoo xam ne teg nañu leen loxo ci diggante dakaar Thiès ak Diourbel guddi ajjuma gi ñu weesu jàpp gaaw daañu ci dikk léegi incha allah ci leeral gi ñu présenté leen suñu beneen partenaire buy jàppale groupe Mouhalim info ci liggéey bi muy waa 2ANINC di ay ndaw yu am jom yu taxawal entreprise bu yëngu ci ay secteurs yu bare bari fii ci Sénégal waaye sax am seen yéene yokk seen i jéego ba dem ci yeneen réew yi ñu gën a jege yow seen entreprise boobu kat daañu yëngu ci domaine yu bare bari bokk na ci wàllum transport logistique wàllum assurance de tout genre panneau publicitaire insigne totem publicitaire ak yeneen ak yeneen wàllum BTP dañ ciy yëngu wàllum plan kër architecture defar kër ba mu àgg itam waaye waaye itam location kër dañ ciy ciy yëngu seen adresse na nga ca Dakar Kër Massar ci wetu rond-point guy gi seen numéro téléphone 8 77 881 20 11 wala 77 191 94 93 ni ñu leen ko junjee léegi lu mat junni nit ak téeméer ak fukk ak benn teg nañu leen loxo ju guddik ajuma jàpp gaaw gi ñu wees ci diggante dakaar Thiès ak Diourbel ci benn opération de sécurisation boo xam ne kat. mi ngi amoon ci ndigalul jëriñ nekk lépp lu jëm ci wàllum biir réew di Antoine Félix Diome mu nekk daal benn opération bu am doole boo xam ne taxoon na nag police ak gendarme lëkkaloo ci police ak gendarmerie lëkkaloo ci kenn ku nekk daal indi say élément ci ñetti gox yi ñu lim muy Dakar Thiès ak Diourbel diggante vingt une jàpp cinq heures du matin waral daal ñu teg loxo lu mat junni nit ak téeméer ak fukk ak benn ñoo ñu teg loxo nag ci ay ci ay euh, euh, infraction yi daal ak yu yu wuute sax waaye daal nag nee ñu boobee opération waraloon na waa police ak waa gendarmerie génne agent yi bare bare bëri policiers yi génn woon lu toll ci junni policiers ak euh, juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn gendarme yi ñoom génne lu toll ci juróomi téeméeri gendarme ak ñeent fukk ak euh, juróom-ñeent 549 gendarme ne ñu itam boobu opération ñu ngi amal ci ñetti gox yi ñu fi lim léegi Dakar Thiès Diourbel waaye itam am nañ yéene wéyal ko euh, ci réew mi yëpp yeneen gox yëpp daal yéene ci réew mi ci fan yu ñu jëmal fan yu ñu info. in Info ay kàddu ngi yooyu kii di l'enfant chéri de Bambali l'homme fort de Bayern Dominique le champion d'Europe le champion d'Afrique double ballon d'or africain le deuxième meilleur joueur du monde la star du football sénégalais Sadio moo ko yëkkati jëmee ko ci le peuple sénégalais waaye itam jëmee ko ci gaynde yi nee daal maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp fan yi jafe-jafe yi ma amoon ci wàllum blessure gis naa ñu bare bari ñii wanañ ma téléphone ñii bind nañ ñi sax wax nañ ci média beeg yu ni mel ñooñu ñëpp ñi ñaan nañ ñoom ñëpp daal maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne itam maa ngi sant yàlla bu baax subir naa sama opération te itam ça s'est bien passé yéen ñëpp daal maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci taxawaay bi am na solo waaye lu ñeel wàllum gaynde yi yéen day tey jii ci altine yi ngeen di dugg ci seen coupe du monde war a dajoo ak Hollande am naa yaqin am na yaakaar bu wér-wér na gaynde yi daañu def seen kent kéemtalaayal kattan daañu boole seen jom seen ngor ak seen doole ngir daal match yi ñu fubal match bu ma doon rek ñu jàppee ko comme une vraie finale na ne lu daal am naa ci yaakaar am naa yaakaar it ne Sénégalais yëpp daañu booloo bokk ndey bokk bàyyi moo xam ña dem Qatar wala sax ñi des fii ci réew mi ngir daal na supporter suñu gaynde yi ñaax leen kañ leen ba yàlla dogal ñu am eh, ndam rek ci match bu ñu mën a dugg loolu daal maa ngi koy eh, ñaan maa ngi daal gën a dénk itam sama coéquipier muy gaynde yi football yi ngi daal ni wane jëm ju mat sëkk xeex ci terrain bi def luñ mën ak luñ mënut ngir nag honorer suñu réew mi di Sénégal allez les Lions muy ay kàddu yi kii di Sadio Mané moo ko yëkkati Mouhalim Info. Mouhalim Info coalition bii di Benno Bokk Yaakaar ci njiital son excellence monsieur le président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall seen yitte fi mu ne. mooy nag daal gën a dëgëral gën a jajj gën a daal takkaat jajj yi gën a daal yëngalaat seen coalition bii di Benno Bokk Yaakaar ba mu gën a am doole gën a massifié wu ay itam coppi ay doxalin indi ay doxalin yees ci seen coalition bii ndax kat ñoom jàpp nañ ne am na ay défis yu bëri ba dal ay lëggéey ak dal ay rendez yu bëri yu leen xaar ci seen kanam loolu nag waral njiitu réew mi jox ndogal kii di président Moustapha Niass nga daal nag mu jiite mission bu ni mel moom Moustapha Niass sax nee na ñoom daal am taxawal nañ benn commission ñoom membre am euh, seen membre yooyu xam ne ñu ngi actif ngir daal def liggéey bii njiitu réew mi dénk leen fukki membre ak juróom-ñett yu actif ñu ngi ci te itam ñu ngi amal ay réunion amalaguñ nañ ñetti réunion fas yéene ko itam amal ndax daal am na ay lëggéey yu bëri bëri yu xaar coalition bii di benn bokk yaakaar waaye itam ñoom ñii nga xam ne ñoo jiite mi am na ay défis yu bare bëri yu leen xaar bokk na ci yooyu sax fexe bi daal ba stabilité du pays Sénégal am jàmm gën a boole askan wi ñoom ñëpp ñu nekk benn bokk ndey bokk bay ab sécurité Sénégal ndax itam nag ñu ngi dëgmal ab période bu am solo muy période boo xamante nii dañu war a exploiter gaz ak pétrole fii ci réew mi loolu nag dafay laaj nag daal ñi jiit réew mi ak coalition bi ñu nekk am ab euh, ab taxawaay bu dëgër dëgër bu am doole daal ngir nag fexe ba def seen ci kéemtilaat kattam ngir daal lu lu lu doxal réew mi waaye itam lu euh, fexe ba askan wi nekk ci jàmm muy daal benn mission boo xam ne njiitu réew mi kii di président. émission nges ngir daal mu doxal ko Mouhalim Info. Mouhalim Info ñu dem ba fële ca Mbour ca prison ba ñii daal caabi ci ginnaaw kat ñoom euh, nekk foofee ca Mbour euh, door nañ tey jii ab grève de la faim li ko war nag daañu ci dikki léegi incha allah ginnaaw ba ñu leen présenté suñu beneen partenaire bu ñu jàppale ci liggéey bi. muy waa librairie xidma di ak kàgg gu am solo gu nekk fële ci Touba di jaay ay téere téere yu bare bari nag ca yooyu ñu ngi ko bind ci làkk olof ay téere xam-xam téere yu bare bari daañu fa itam ay téere ñu ci làkk français anglais wala arabe daañu fa def itam ay liggéey jëm ci wàllum kayit wàllum photocopie wàllum euh, mool ay téere defar ay badge defar ay carte membre ak yeneen ak yeneen mën nañ ko faa récupérer sa pièce téléphone bu la réer daañu fa itam jaay ay décodeur TNT ay antenne TV original wi Flybox mobile daañu ko fa jaay seen numéro téléphone 70 596 16 16 wala 77 596 16 16 77 596 16 16 ñu leen ko junjee léegi dañu dem ba fële ca Mbour ca prison ba ñun nag dal ñu caabi féete ginnaaw kat am nañ dal ab grève de la faim boo xam ne door nañ ko tey jii tey jii ci altine gi ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre mu dëppoo sax ak euh, l'ouverture de la chambre criminelle li ko war nag daal ñoom ne ñu ay jafe-jafe yu bare bari daal yoo xam ñoom ñii ñu ngi koy dund ñeel seen wàllu nekkin daal jafe-jafe yu métti yoo xam te ni ca nekkin wa taxul mu demee noonu waaye itam ñu ñu ay longue euh, détention préventive daal ñu ñu fa téye lu yàgg yàgg yàgg te du jublu seen i dossier waaye itam ay engagement yoo xamante ni état bi jëloon na ko seen diggante ñoom waaye itam euh, respecté wuñ ko lu ñeel itam wàllum négligence ñàkkal fayda wàllum politique de discrimination daal ay samba am ndey ak kumba amul ndey daal yoo xam ne dañ koy nemmeeku ci yëf yi ndax sax nit ñëw tey jii rek ñu jublu ci ay dossier am ko mu dem waaye léeg-léeg nit ñëw yàgg fa lool kenn du jublu ci seen i mbir li ko war a sax li koy li koy firndal sax nen tey jii ci altine gi nga xam ne moom moo dëpp ak levée de la chambre criminelle am na ay dossiers yoo xam ne ña te 2020 ak 2021 am na ñu ne foofee ci prison ba ñoo xam ne seen i moo gën a yàgg foofee te jublaguñ seen i mbir ba léegi yooyu poñ daal war a ñoom ñii ñu tax na ñu door ab grève de la faim Mouhalim Info Info ñu door xibaar yi bi biti réew yi kon ñu dem ba fële ci réewum Indonésie tey jii ci altine ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre 2022 ñoom daal nag euh, tuuti su méttee métti la ñu xëy ndax daal suuf yëngu ba waral nag ñu bari ci nit fa jamono ji ñuy bind sax lii ñii ñeen fukki nit ak ñeent rek la ñu recensé woon ci ñu faatu waaye daal autorité nag bu gën nañ daal joxe beneen chiffre sax bu gën a kawe lu mat juróom fukki nit ak juróom benn yoo xam si ñàkk nañ seen benn seen bakkan muy 56 personnes ak lu ñaari téeméeri nit yoo xamante ni am nañ ay gaañu-gaañu ay junni junni junni kër yàqu fa dégâts matériels itam bu doy waar itam euh, am fa nañ nag mi ngi xewee ci dëkk bu ñuy wax Cianjur euh, nekk daal à 100 kilomètres du sud de Jakarta mu nekk itam ne ñu euh, benn daal tremblement de terre bu am doole boo xam ne sax dañ euh, yëg nañ ko sax ba Jakarta daal suuf si yëngu na daal ba ba ñi dëkkoon sax Jakarta nga xam ne sore na ak fi mu xewee lu toll ci cent kilomètres yëg nañ lu ni mel gouvernement nga itam joxe daal ndigal nit ñi nag daal njort nañu ni euh, daal yëf yi jeexagut te itam li ci gën a doy waar daal mooy Indonésie nag réew la moo xam ne fi mu féete dafay faral daal di dund ay euh, ay ay ay ay ay tremblement de terre ndax daal moom mi ngi positionné ci lu ñu wax ceinture de feu ci Pacifique bi nag da daal fi ko daal gox gox la boo xam ne li muy faral di am ay tremblement de terre dafa bari waaye daal tremblement tremblement de terre tey jii ñu xëyee lu mat euh, juróom fukki nit ak juróom-benn faat nañ ci lu mat juróom-ñaari téeméer nit am ci ay gaañu gaañu ay junni junni kër yàqu fa wàllu dégâts matériels itam am fa bu bu doy waar boo xamante ni daal waral na daal réew mi yëpp itam nekk ci jafe-jafe askan wi euh, autorité itam di ñaax askan wi ak daal di leen bàyyiloo xel ngir daal nag ngir ñu génn ci kër yi ndax daal jàpp nañu ne yëf yi mën naa yënguwaat bala yàgg dara Mouhalim info. Mouhalim info ba tey lu ñeel xibaari biti réew yi ñu dem ba fële ci réewum Amérique kii di Kanye West moom waykat bii nga xam ne ab rappeur la nekkoon na itam ab borom këru kii di Kim Kardashian moom daal nag mi ngi feddali yéene joo xam ne sax waxoon na ko ay jamono ci ginnaaw daal tey jii nag feddali leen ni mel ne daal moom yéene mbokk na ci nekk président njiitu réewum Amérique ba tax daal élection présidentielle yi war a am ci réewum Amérique ci atum 2024 moom mii dina ci bokki Mouhalim info Mouhalim info xibaari tàggat yaram bi ñu ngi waa waa Mouhalim sport ci njiit la Ahmed Bachir Mbacké ñu ngi koy nuyu lu bëree bëri waaye ñu door xibaari tàggat yaram yi ay équipe européenne ngi nii kat yoo xam ne dogal laa ngi nii boo xam ne ngankoon nañ ko mujj nañ ci génn nag muy daal seen capitaine yi takk ay brassard yoo xam ne dafay am couleur borom ñaari tur yi FIFA yàgg na koy wax daal nag neen mondial bii moom dafa wuuteeg ya fi doon aw ndax réew ko organisé di waa Qatar bari daal yoo xam ne Euh, lu dëppoo teg lislaam la mu gën a dal euh, imposé waa FIFA ba waa FIFA nangu lu ni mel waral nag waa FIFA doon nag euh, artu ak dankafu bépp équipe nationale bu fi war a ñëw lu ñeel capitaine yi mu ngel brasaru capitaine bi ba mu nekk lu ñeel couleur borom ñaari turi am nag daal ay euh, équipe européenne yoo xam ne daal ñoom ñi ngi ko jàppoon daal nangu daal jàppoon nañu sax dem ba bu dee ay alamaan ci wàllu koppar ñi fay ko waaye daal seen i capitaine nag dafay takk euh, brassard boo xam ne dafay am couleur borom ñaari tur yi waaye nag FIFA génne ab dogal bu gën a dëgg gën na daal moom nee na sax ay waxi alamaan ci wàllu xaalis waaye nag ay sanction sportive la la cay def daal ay daan yoo xam ne ay daan yu daar daar yu xewee itam ci biir terrain bi moo xam aj ay aj yi koy takk wala sax dóor leen carton jaune bala ñoo tàmbalee football wala sax aj leen ay nangay massa gi ni mel yooyu daan daal nag mu nekk daal daan yoo xam ne nag fédération yi rawatina juróom-ñaar réew sax yu nekk fële ci réewum Europe nag loolu moom kon nag day mujj compliqué kon nag daal nañu bàyyi mu set bañ a takk yooyee Brazzaville bokk na ci yooyu fédération fédération bu réewum Angleterre bu réewum Pays de Galles bu réewum euh, Danemark waaye itam réewum Belgique ak itam euh, réewum Allemagne daal fédéra juróom-ñaari réew daal la yoo xam ne da nga fare ca euh, continent bu Europe réewum euh, Angleterre ci la bokk réewum Pays de Galles réewum Belgique réewum Danemark réewum Allemagne réewum Pays-Bas muy Hollande ak réewum Suisse ñoom daal seen fédération yi nag mujj nañ daal dellu ginnaaw ci lu ni mel ndax daal dañu ne ñoom euh, nga tàmbalee ko foofu football sax ñu door la carton jaune nee loolu day compliqué ci yëf yi kii di Hugo Lloris nga xam ne moom mooy capitaine équipe nationale bu France itam bi ko ay journalistes intéressé ci lu ni mel moom daal li mu xam ne daal moom daal dafay resté neutre rek en tant que joueur déglu ay kilifaam lu ko wax defal mu def bu ñu ne ko bàyyil mu bàyyi lu ñeel nag wàllum daal euh, sanction ay carton jaune daal lu compliqué la loo xam ne fexe daal ba euh, ah football kat buy football ba am carton jaune moom moo gën bu dee nag FIFA moom muy organiser fii lii la bëgg ah nan ko defal liñ bëgg rek te daal euh, fexe nag ba football ci jàmm ñibbi si jàmm waaye daal nag lu ñeel wàllum euh, décision yi moom dépendre ci man ci kilifa yi la dépendre Mouhalim Info. Mouhalim Info ñu jeexale xibaar yi kon ak xibaar bi nga xam ne mi ngi ñeel waa Al Qaïda ci benn bataaxal boo xam ne kat ñu ngi ko publier le 19 muy bërki démb le 19 novembre 2022 di àddu ci coupe du monde bi ñoom daal ñu ngi woo jullit ci àddina bi ñëpp ngir nag ñu boy boycotté coupe du monde bi wañ ko ginnaaw bañ faa dem bañ koo seetaan. seen branche bi nga xam te ni moo féete fële ci réewi arab ya muy euh, la euh, muy waa a AQPA euh, Al-Qaïda dans la péninsule arab ñoom ñoo ko publier dañu daal bi coupe du monde dexee fële ci Qatar dañ ko wan ginnaaw jullit ci àddina bi yëpp nañ ko wan ginnaaw ñi ngi jox ñu itam baaraamu tuba waa Qatar ne leen daal yéen yéenay organiser ab loo xam ne ay weer lay dure te lépp di ay caaxaan ak i fo yéenay indi ci dënd arab bi ay nit ñoo xamante nii kat ay nit ñu immoral la nekk daal ñu amul euh, dara ci dara ci gëm-gëm yéen fi indi ay góor jigéen yéen fi indi itam ñu yëngu ak dox ci wàllum corruption yéen fi indi itam ñu gëmul dara yéen leen indi fii ci suufi arab yi yéen daal ngeen ñi nga xam ne nag yéen nekk di def lii yéen da ngeen coupable yéen nag te itam yéen yéenay dimbali ak lëggéeyal seytaan yi ak ñëpp ñoo xamante ni itam ñu ngi daal ñu ngi yëngu ci mbirum satanisme yéen daal yéen a leen jàppale ci bi ba tax daal ñu ngi woo bépp jullit ci àddina bi rawatina ñu nekk fii ci déndi arab yi ñu moytu partout coupe du monde bi bañ faa dem bañ ko seetaan bañ ci bañ ci yàbbi muy boo xam ne kat waa alqaida te fare fële ca euh, réewi arabe seen branche bi nekk ci Yémen ñoom daal ñoo publier lu ni mel barki dem 19 novembre 2022 Mouhalim Info lii moo fi rusandi woon ci xibaar seen panel yi di Mouhalim Info ci jàppandaluk Serigne Mouhamadou Cissé seen mbokk Xaadim Caam doon leen ko faram fàcceel doon àddoo fii ci groupe numéro 3 ñu ngi nuyu Serigne Ndiasse Ndiaye mi njiital groupe bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.